عاقبا ولن قال في الأمر Cheikh Moustapha ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay fay euh, ñi ngi rafetlu euh, sëñ Mbacké mooy sa góor gi moom lañ defoon reportage bi nga xam ne daj ne àddina bi yëpp ci mbay mi vraiment autorité sax ak kilifa dañ ko rafetlu ndax dafa jàmbatal ñëpp am nañu ñu reprendre sa vidéo bi ngir béykat yi li ñuy jànkoonteel wax dëgg yàlla vidéo boobu li mu am ci ay vues wax dëgg yàlla fii ba bitim réew ñëpp a ngi rafetlu kaddu yi mu joxe ci jooy jooyal béykat yi. tey nag ñu dellu siwaat ak moom ci fii nga xam ne mooy nebbe euh, sunu waajur yii nekk fi ñu gën a ñaanalaat bu baax maam Gédé bu lakk lëg bu lekkee aloom na ko gërëma coy comme moom moo gor nekk fi ay bokkam yëpp fekk ko ànd ak moom jàppale ko ba dëkk bi ak si fii moom moomu ak waa Njugeen yeeg waa Ngayeen du ñu man lu dul ñaanal leen Cheikh Moustapha sa teewaay fii tey euh, lan moo ko waral ak lan mooy sabab bi ak armée li Ngayeen nga waxal ñu ci. naaw bi ma sant yàlla julli ci Yonent bi sant sëñ Touba di sant sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaan yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal sëñ Moustapha Mohamed Mbacké mi suñu xalifa mi suñu wasila si yoon wi yal na ko yàlla yàggal suñu kanam te wér sama teewaay fii sëriñ comme armel yi ñuy béy moom ma tax a teew fii tey teewaay gi nag mu ngi tàmbale ci armel yi ngeen yooyu nga wax ca lañ njëkkee woon mbéy mi tey ñëw ci armel yi paaleen yu ñu leen fekk mooy armel yi njuugeen yu yu yu yooyu yan mag nga nemmeeku ci mag lu mag ñi nett li ñan lañ fa njëkk a denc liñ ma nett li mag ñi nett li laa fi lañ fa njëkk a denc maam mbañ mm. fa lañ ko denc mm. waaye nag moom denc ñu ko ca biir armel ya ca pegg armeel lañ ko denc boobu ngéyeen fa fa mu dëkkoon mm. moom piste bee ko faat mm. te boo piste ku mu faat dañuy mm. dañuy dañuy gas sa biram néeg suul la ci waaw wala ñu taal ko moom nag yàlla daa dogal dañoo gasante penku sawum néeg ba ca perma wàcce ko fa bañ ko defaree foofu lañ ko denc ah bu ba mu jàllee nag ñeen ñi topp ci moom képp ku ci gaañu dañ la ci armel yi li ma mag ñu wax daal ci li ma fàttaliku maam pend kumba juug ndey maam Ousmane jabari maam Ousmane Gueye di ndey Baye Saliou. Mm. fa lañ ko denc. Mm. Modou Gueye. Mm. doomam fa lañ ko denc. waaw décor bi décor bi ah, fa suul daal. ci gàttal li ma ci mag ñu wax bari na. ndax armel yooyu armel yu mag la. ndax booba waa kër moo nga kese ñi dëkkoon foofu ci ginnaaw. daanaka ñoo ñëpp itam. ci armel leen suul. ak ak njabootam gépp foofu lañ leen suul maa ngi déglu yaayu wa Baye Baye Saliou Gueye waajuram jigéen fa lañ ko denc wala wala magam la. waajuram wu jigéen. maam Penda Kumba moom ma nga faatoo dëkk bu ñuy wax pàccem dafa gane ji woon. Hmm. dem wàcce fab liggéey. Hmm. booba sama maam Ousmane Gueye hmm. fekk ko mu wàcce liggéey. ak jamono yu bokkut. mu am ak jaaxle lool ci denc ko pàccem. mu daal su ma sañoon dinaa ko yóbbu. neb bi denc ko fa. benn séeréer kër Sambangule Sarr boobu rakkam ju fa nekk ne ko man de mën naa laa dimbalee leen soo ba jant bi so foo ma ne jàppal ma jàpp foo ma ne ma bàyyi kooku moo ko yenule ñoo ko yenoo pàcceem ba denc si ko nebbe loolu moom ci lu ma mag ñi wax ni noonu la demee woon ka ma ci xam mu di Modou Gueye kooku moom gaynde gee ko jàppoon ci njaareem. Mm. loolu moom nett lañ ma ko waaye mag fi la ma fekk ndax mm. boobu ñun dañoo xëyoon damaa sàmmi woon bu tënkoon bu ma ñëwee. Mm. fekk yi ci buntu maam soxna. lépp deret. boo maas maan gi moo ko bu kaw ba Kaolack la faatoo. sëñ Cheikh Mbacke moo joxe ndigal ñu indi ko nebbe. ñu ngi ko denc ci armeli nebbe yi. loolu moom. tam lu ma fekkee woon la ak lu ma mag ñu wax. ah ci cosaan nag comme noonu ngeen waxee itam ci ñëw ak gédde jaw moo fi njëkk hmm. gédde ba mu ñëwee sëriñ bi laaj te ngoon fay moo ko dalal hmm. ba mu ko defee itam mag ñi hmm. waayaateen ñëw nañ fekk ko fi waa njuugeen ñëw nañ fekk ko fi waa looyeen ñëw nañ fekk ko fi ñi sant caam ñëw nañ fekk ko fi ñooñu ñoo ay dëkkandoom maam mbañ jëy bu ma boo ma ne daanaka moom ñi mujj ñëw ci la bokkoon ndax boobu moom itam da doon dagab manel koddu ngoy am nag cër bu mu yoroon ca ñaañang mm. ñu bàyyee ko mu ñëw fii moo waral nag mu mujj ñëw mm. ba mu ñëw itam moo wax dëkk mu dëkk foofe ca fañ ko denc mm. ah ba mu yàlla dogal itam maam Modou Guèye Nebbe moom di taawam maam Ablaye Guèye moo ci topp maam Moussa Guèye topp ci maam mu Guèye maam Ousmane Guèye din caat ak seeni i jigéen ah loolee moom moo waral nekk ak waa Ngéyeen foofa ah Nebbe nag ñëpp dañoo jaxasoo hmm. ndax mu duggee nebbe moomu ñuy wax hmm. Amady Ndiaye Njàbba mooy nijaayam hmm. ndax Amady Ndiaye ak Géy ak Adam ñoo bokk ndey baay ah Amady Ndiaye moo jur usmaan Diouf ak Babacar Diouf ak Jaam Diouf ñooñu Géy itam moo jur Modou Géy ak Ablaye Géy ak Moussa Géy ak Ousmane Géy ah kon googu bokk dafa jaxasoo Adam Ndiab Adam Adam sama maam la moom itam Ndiab baa ko jur moom ñu ngi ko joxoon seeg defe ca doom domb kooku itam ak njabootam foofu la sàqi ko ah li mën a wax ci nebbe daal mudu gi nebbe moo njëkk a dékk Cheikh Moustapha ay loxo xise nag bari na nit lii bari na waa am nag waroo ndax man de li ma maam mudu gi wax ci boppam daf maa wax ne tëdd ba maam jëkkul jéblu ci sëñ sëñ sëñ Tuubaa ku ñu wax ma Paate Sarr ca Ndéem moo doon sëriñ Mbañ Géey ca la maam Modou Géey njëkk a jéblu mu fa jógee dafa dafa maa xam ba guddi mu gént feeñu ko mu yël tuddaat mu dem ba ci suba mu yël tuddaat guddi dellu gént sëñ feeñu ko mu dem wax ko ma Jaw ca mu ne ko Modou Géey kon de war ngaa dem ci sëñ Tuubaa Mahmoud wax na ne ba mu jógee ñëw si sëñ Touba maa Abdoulaye Diop Palal moo ko gunge woon ba mu ñëwee saa yu matt ba mu jébbaloo moo ngi ko tax na ci déeg bi ñuy wax déegam ñëf dit nee na ba mu goree saa mat wa yenn ko indi ko ci xay gi ci buntu kër sëñ Touba foo sëpp foo wa nee na ma ba toogee ba bëgg gis sëriñ booba sëriñ Afia bàyyi sëñ Moustapha maam bàyyi sëñ karam mm. nee na kooku moo ko yóbbu ci sëriñ bu mag bi mm. nee na ba mu ko ko diisee. Mm. mu ne ko demal toog nee na mu toog ba ñu julli takusaan mm. ku tedd ki mm. yëngu te aafe jëm ci moom. lala fi su mu ànd ak moom. nee na ba mu dikkee sëñ aafe nuyoonte ak moom ba eggal. Mamour Gueye egg si nuyoo. sëñ aafe nee na sëñ ku tedd ki. jàpp fekk dafa jàpp takusaan ba eggal. ne mu jiñ sëppar doon jàppe sëñ aafe. nekk nga barkeelu ci ndox moomu bi ngay gan ma fi mu ko fi maam ne ba suñ affaire barkeeloo jox na ma barkeelu mu ne ku tedd ki kii day dafa ñëw ne daa bëgg a ci yow da koo feeñ bëgg a ci yow sëñ Tuubaa moo ko wax ne yóbbu ko ci Cheikh Moustapha booba say kër sëñ Mbàkke Soxna Lo gii ci bëj Kajoor jumaa ji mooy kër Cheikh Modou Moustapha maam ne na ba mu ak sëñ aafe ba ci bunt kër sëñ bi mu sëñ aafe mu sëñ sëñ Moodu ko Mbàkke mun ne ko kii dey ku tedd ko yebal ci yow maam ne ba ma agsee nuyonte ak Cheikh Moodu Moustapha mu ne ma ana nga bàyyi ko mu ne ko nebbe mu ne ma nebbe nu mu toll mu ko nebbe diggante ma njaay ñu naan ay ñetti kilomètre ak ñeent ci la toll mu ne ko doon say tànk mun ne ko man de Mbàkke damaa bëgg a jébbalu mu ne ko noo tuddoon noo tudd mu ne ko man de ca koddu géy lañ may wax Cheikh Modou Moustapha moo ko tudde Mouhamadou Guèye Nebbe mm. mu ne kon de mën na laa tudd Modou Guèye Nebbe mm, mm. sama maam mu ne ba mu jébbaloo ba àggal ah, Cheikh Moustapha ne ko Modou Guèye mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax meew boobu ay naare gànnaar ñoo gën sëriñ bi mu bëgg meew mu ne ko ndax Modou Guèye mu ne meew mën naa am nebbe mu ne ko waaw loolu day Mbàkke mën na fa am mu ne ko mu tudd meew maam nee na ma daal déparé nebbe ñëw njaareem ba ñëwee tey tool maa Ousmane Diouf ba li ci déggab suufaan foofu si amoo dug may tey seen yaatu suñ tool ba den sama tool ba den moom maam nee na foofu la nay nawet maa Ousmane Gueye moo tëdd gétt ci ne Mamadou Gueye waxee ne bam mu yee ko booba gétteg waa Njuugeen ak gétteg waa Ngéyeen benn lañ daanaka ñoo bokk na ci toolu suufaan ye maam nee na bam ba mu yeeyee maa Ousmane ñu yee ka ne ci gétteg Njuugeen ñu ret nay yëpp ba këf ba ndab fees mu def ko ci tax bu mag tee ko yenu ba mu ñëwee ba ci kër Cheikh Modou Moustapha mu wenn ko wét ci bunt bi bañ na dem noo dugg njëkk ci jumaaye ji sëriñ bi ñu cadre bi gerte moom ana kooku mu ne ko mën a Modou Gueye mu ne ko ah Modou Gueye da naaje woo ne maam wax na mu ne tax boo kaaru kër sëriñ Modou Moustapha ca ca défoncé bi naar yi jëfandikoo ci tax bi lu yóbbaale meewam ba foofu lañ mujj bàyyi tax ba ginnaaw gi nag bi mu dellu siwaatee mm. la ànd ak rakkam mm. muy Ablaye Gueye Moussa Gueye Ousmane Gueye mm. ak Babacar Diouf mm-hmm. ñoom jéblu ci sëriñ bi mm-hmm. ba loola jàlle itam ci la dëkk bi góor yàlla yi mm-hmm. sama nijaay Malick Fall maam Ousmane Diouf maam Modou Yaate Séni Yaate jëmb sil ñooñ daal la ñuy def par étape ku ci bëgg a jéblu yi daal boo ko waxee mu la nañ daje ci daxaar ak jogoy saar ñu ànd dem fekk yi jiir di mu xëy fekk leen fu ñu ànd dem yóbbu lañ ci Cheikh Modou ba ñëpp jéblu yàlla dimbaloon na ko nag ba nebbe gépp daanaka benn benn sëriñ lañ amoon. ginnaaw gi nag sëñ Moussa Ñang koll moom itam boobu mu ngi ci wàllu Ibra. ba mu ñëwee sañ fii nebbe am fi ay taalibe. sëñ Sëriñ Ndiaye Baye. mi ngi dëkkoon fii ci kër Maa Ibra Sey. moom itam yàlla def na maam fii taalibe. sëñ Thierno Fall xonn moom itam sëñ Modou ñëw na fi am ay taalibe. sëriñ ma waa kër sëñ ma parti si am nañ fii taalibe muy waa Caameen loolu waa Daaru Musi sëñ Mudaa sëñ sëñ maam Cerno Ibrahim mm-hmm. am na fii taalibe muy waa Ngéyeen kër Samba Gueye mm-hmm. kon mën naa ne daal nebbe mm-hmm. ñëpp ay taalibe lañu ñëpp ci yoonu sëñ Tuubaa lañ sax ci lañ judd ci lañ yaru ci lañuy fas yéene nekk ba ba ñuy faatu ñoo bokk ndey bokk baay koo ci bokkurut ci ndey yéen a bokk ci baay kon nag yàlla na yàlla defal jàmm jàmmal dëkk bi naatal dëkk bi yow it teñ Modou lu ni nga doon sama rakk tax ma di ko wax waaye nag fa Mamour gi tegoon tànk man gis naa ne yow fa nga teg sa tànk ah, yaa ngi góorgóorlu yaa ngi xañtu lu baax ca mu Modou Gueye doon def Mamour Gueye nag ak maam Babacar Diouf li ñu am ci nebbe mën naa ne ñoom dong ñoo ko amagum xëy na am na ñee ñu am waaye ndax maam Babacar Diouf maam Mouride wax na ma ne Cheikh Moustapha woo na ko ne ko Modou mu ne ko Mbacke mu ne ko damaa bëgg nga yóbbul ma ñaari paquet di seng tindoodi maam Modou mu ne ba mu xëyee mu ànd ak maam Babacar Diouf dem njaareem yenu seng yi nee ñu xëyee njaareem di dox ba nu julli timis dañ egg tindoodi nee na ba yenn koo seng maam Babacar Diouf tànk yi dafa folox niwi ba mu xalaat ne bu ñuy woote reer bi du mën a jóg dem fañ teg ndab li ne mu mu ne ko mu Babacar mu ne ko Mbàkke mu ne ko da ngay jóg cooforlu ba fu ñu teg ndab li ma mën laa meeb teg la fa Mamadou moom wax lii ne maam Babacar jug defaru coo cooforlu ne dafa mel ni sax Moustapha daf koo xam ka jël ndab ba mu ñëwee ci kanam maam Babacar jug la ko teg taalibe yépp ñu fekk ko fi mm. ñu reer bañ fanaanee bët set ñu xëy seen mu jox ko ab ileer ak ab ratu ne ko Modou Gueye mu ne ko Mbacke mu ne ko na fi aw yoon ba Touba maam nee na mu yor ileer bi maam Babacar di ratu bi ku sonn jox sa moroom ba xaal yoonu ba ñëw ak moom Daaru Xudóos bañ xëyee mu dale ko jox ngajju ak jaasi ne ko na fi aw yoon ba ci jumaa ja sama wax na ma ne ñoo goral Cheikh Moustapha Paftan mi ak tumpi noon digganteem ak aw yoon bam këram bu ca jumaa ji kon ñooñu wax dëgg yàlla yal na yàlla tas seen barke yal yàlla ba la ca doole ku itam mm. maam Babacar Diouf ba mu wàccee liggéey mm. sama maam wax na ma ne mm. Cheikh Modou Moustapha moo ko jox ab turki njaaree moom moo leen ko solal denc ko ci armel yii ba loolu jàllee maam Modou gi maan na moom ba mu wàccee liggéey Serigne Cheikh mbake moo suñu garaam ba mu jox ko moo leen ko laxase denc ko kon ma nañ ne nebbe liñ am ah, jafe na ci bari ñu ñu kon nag yal nañu yàlla doole jàppale. amiin doole ñu dimbale. amiin tàppe xol ñu nekk benn. lu waay yéen sa yéen sa morom jërëjëf. amiin jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. sëñ Ibrahima. bisimilah ci ay kaddu rek ñu ko mu tëj. macha allah euh, sëñ Ibrahima. kon xam naa ne moom ñu ngi waaj a yëkkati jotaay bi. dëgg la ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu ngi leen di fay bu baax sànni ci ay kaddu yu gàtt rek. man nag sumay kàddu moom daanaka du ci bari ndax li may wax rek mooy man daal dëkk bi mbooleem li fi mot a wax ci mag ñeeg cosaan yéeg lépp mag ñi wax nañ ko man moom li may wax ñu fas yéenee jàppante fas yéenee yokk boole suñuy xol fas yéene ànd lu ciy soxlaas kenn di soxlaas ñëpp ñu bañ di xiiroo bañ di ŋaayoo def suñu bopp muy benn su ma sañoon képp ku ci am ak sa moroom réeroo yàlla gindale leen ba réeroo booba denc ci yéen ndax nit ki bu jàppalee kenn lenn kenn jàppal kenn lenn rek ci yéen ak jàmm yàlla sax day manqué man daal maa ngi ñaan ci yàlla dëkk bi yëpp ànd nekk benn góor ak jigéen mag ak ndaw man loolu rek laa ci am lu may wax jërëjëf jërëjëf wala ñu jox sëñ Lo mu kii nga tëj ci détail bi sànni ci ay kàddu après Basiru tëj. sëñ Lo alhamdulilah rabil alamin sant nañ yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak maam hmm. ah, waa dëkk bi day yal na yàlla yàggal leen fi amin xale yi dëkk bi ak magu dëkk bi amin amin ya rabbal alamin li nga xëy tey day yàlla hmm. gis na ko yonent ba gis na na ko hmm. kon buñ ci teggi suñu tànk benn yoon toujours na ne ci suñu xel yàlla nag lu mu dogal mm. sàkk na bés ba nga xam ne ci nga koy mën a def mm. ak loo ko bëgg-bëgg te bés ba ñëwut mm. doo ko mën a def ak it yàlla yàllay def ci wenn làmmeñ la koy jaarale mu tudd ko mu def raare ko ci xol yi ñëpp am ci yéene dégg nga ñëpp kenn ku ne am na yéene lii tey ñu def ko waaye sëñ Modou Gueye mii tey la ko yàlla jaarale ci làmmeñam mu wax ko mboolem ku ko wax dafa mel da nga ko ci ëpp yéene dégg nga kon ñu ngi ñaan yàlla yokk wërsëgam guddalu fanam maa ngi si dëkk bi yal na yàlla baleen fi xale yi yàlla yàggal leen fi may leen kàttan li am na solo lool jërëjëf jërëjëf gaa yi ngeen ngeen accident rek lay ziare bu baax Cheikh Mohamad Basir kon xam naa ne yaay tëj jotaay bi ñu ngi lay ziare bu baax yan kàddu ngay sànni ci euh, lii nga xam ne sa kilifa yi sa mag yi wax nañ ko fi جزاكم الله خير جزائي يلا يلا فين في التاوي يب خير يبت <laughs> متخوي لي ده القرآن واحنا نعلي نتو فاميلا ينف بسن فوق دوما دوما كم موم تجف جباة بسن في يلا بكتب من نك لما يبخ تكتب يب لا كوي بخ ده <laughs> mag ñi fi nekkoon dañoo nekkoon benn bopp li may wax dëkk bi yëpp laa koy wax di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla mi nga xam ne moo am yàlla yàlla leen yàlla fay hmm. ah sëñ Modou li ma njëlbeenoo wax ji danaa ci dellu siwaat hmm. damaa wax ne alxuraan wax na ne doomu aadama bu sant morom ji ci jëf bi mu jëfal yàlla du sant yàlla ku ko bind hmm. man dey sant naa ñii fi teew di jëfal yàlla jëf jii ñu ko jëf sant la yow ndax bii nga ma woo wax ma ko man nag lii dama cee kontaan wàlli istuwaara ki nettali nag xëy na naam war naa caa wax waaye nag am na ñu ci wax ba pare jiituma ci di samay kilifa mm. te istifaar du lenn lu dul fekke takk mm. fekke bind mm-hmm. ñu nettali la nga nettali loolu mooy histoire du leneen mm-hmm. ñi fi wax ñëpp kenn ku ci li nga wax dëgg la ndax loo fekk loo loo boo ko fekke wutit mm-hmm. ku sax rëkk ca saxu ba nga sax fekke ko nettali man nag li may dénkaane moo di mag ñi fi newoon nin fi nekke woon na fi na fi gone yi nekk ndax da wax ne gédd moo dëkk fii si dëkk bi loolu lu wér la ku fi gone goo xam ne tey say at commencé na ci juróom benn fukki jëm suuf loolu sa booy na sam nopp mag wax na la ko dem bala fi mag wax na la ko nekk fek loolu moom am na ñu ëpp nag ndax am na gone yooyu xamuñ sa dara mag ñi nag nañuy waxtaan ak gone ndax mag ñi fi jëkkoon gàcce ngaa laam géddee fi jëkk bu ginnaaw ga defoon ni dëkk du am kenn du ko fi fekk ña ca bu ñu indee yoon bu ñu leen bootoon ñu fab ay dëkk doxale doxale diggante diggante seen ak ñi leen boot duñ fi dëkk dañ leen di dàq ñu dem tàgge bu leen am na jàppal jiw kon mag ñi fi des ak gone yi fi des mag ñi nañuy waxtaan ak waxtaan ak gone yi armeel yii ngeen gis ñu def ay pàcc mag ña defewuñu ko woon ngir baralante dañ ko defoon ngi muy si la su amoon te booba jamono booba mag ñi koo xamante ni bii faatu la nga ko fa nga dëkk ngay dog dog wurum di ko fa denc ko fa dëgg na loolu moo sabab armeel yi mm. waaye tàggaloo ak mm. xàjjale taxutoon mag ñi def mm. mag ñëpp benn bopp ne nebe ku ñu mosaane suba ñu yendul si la doo fanaanee te loolu mi ngi fiy jóg. fiy jóg de. Mm. wa gémmañ nag waxul dëgg ay tappale la yow. Mm. nañu boole suñu bopp. Mm. nekk benn. ñi nga xam ne ñoo di gone ay mag féete leen kanam bu ñu xeeb seen i xam-xam. loo am am xam-xam. ak loo am am am man nan mag ma la meññ fekke loo fekke wut moo lépp xam-xam foofu. dëgg la ci lu wér. na gone yi topp ci mag ñi di laaj seen seen i ndigal. mag ñi itam nañuy toog ak gone yi. man du mu doom ragal du ma am sët ragal ko. Mm. du ma yor jabar ragal ko. Mm. soo nekkul ci dëgg dinaa la newoo ci dëgg boo jaaree foo xam ne démb mag ña daawuñu fa jaar dinaa la eh kaay mbër. fii la mag ñi daan jaar xamal la mag ñi fi newoon seen i jikko ak seen i qualité. Mm. ak te ya xam ne moom lañ doon dox su ko defee nga xam. mais loolu bu fekkente ne bi amul gone gi lim sax la yaakaar ne loolu mooy wéy. jamono bii nag soppeeku. bopp sa bopp moo fi ne. li ko fi indi ñëpp xam nañ Mm. tubaab bi yàq na réew mi mm. ak yii xew nga xam ne daanaka na ma yàlla baal mm. benn sol li ma ciy wax daal mooy sant naa la yow sëñ Modou sant naa ñii nga xam ne ñoo fi teew samay baay samay mag samay rak samay jarbaat ak ñi nga xam ne samay morom lañ sant naa ñëpp lii de man lu ma kontaan la lii daal sëñ bi man day mënu waaye suma ko mënoon dinaa ko def fee may fee yeewoo tey de man fu ma mës a yeewoo nebbe ma ko gën mm-hmm. te neb neb neb laay doon bu may dee booba mm-hmm. dugal ci pax mm-hmm. suñ ma ci doon witti sànni it laay doon de bama may dee gas ma ci biir suuf ci laay waaye rek gone yéen ñi fi des mag ñi fi des bareetul jërëjëf sëñ Mbacké kon ñu ngi ci waaju tëj bi ah, Gindigaal TV woon fii ci Nebe tey ngir def reportage boo xam ne daf koy def ci armeelu mbay mi Nebbe Ngogu dëkku cosaan dëkku taarix dëkk boo xam ne ñëpp dañ leen wax comme ni ko seex Basir waxee mag ñi ñi fi des tey daanaka bare tun waaye yàlla leen fi yàlla yàggal muy Serigne Daouda Fall Baye Bara Fall Bara Diouf ak ñoom Modou Abdoulo Moustapha Guèye ak euh, Mor Diouf ak ñeneen ñi ñii ñoo fi des ci ay mag waaye benn borom xam-xam da doon wax ne wax ma sa ndaw yi tey ma wax la sa ëllëgi réew euh, dañuy gën a amaat yaakaar ndax ab dëkk su demee ba am téeméeri at léeg-léeg dana dana faral di niru gent waaye buy judduwaat ci ay ndaw lay juddoo comme tey jii dañoo xool bu ñu comptabiliser dëkk bi ndaw ñi ñoo ëpp mag ñi dañuy am yaakaar ndax yaakaar bi ñu am mooy bu ñu dégloo la Kocc Barma waxoon rek mag mat naa ba cim réew ndax euh, ba muy ba muy ba ba ba histoire boobu ba mu koy def ah, buur bi dafa rey mag ñi fi nekk ñëpp ba mu des Kocc Kocc na butu ji ah mu ne nag xale yi ñu ma pentiral asamaan si xale yi ne ah loolu de doy na waar waaye ñu daw dem ci Kocc ne ko maam Kocc ñu de yow yaa fi des ci mag yi buur nag rey na mag ñëpp ba mu des yow mii kese nee na ñun ndaw ñi nañ ko péntural asamaan si mu leen a ah, buur si rey la leen jëm parce que bu ngeen pénturul asamaan si mu rey leen waaye bu ngeen demee nee ko na dem ba fa muy fa ñuy pénturé mu rëddal leen fa ba ñu dellu wax ko buur bi buur bi leen mag mag a ngi ci dëkk bu mag des na kon mag loolu lay jariñ ñi ngi ñaan yàlla yàlla jàppale waa Nebbe jàppale ñi fi teew xale yi suñ borom jox leen ay milliards yu milliards ñu mën a jàppale seeni waajur Nebbe benn bopp la Cheikh Ibrahima Fall sëñ Moussa Niang Koll waaye Modou Fall Xol sëñ Ndiaye Baye ñooñu ñëpp njabootug sëñ Touba la li ñuy ñaanal yàlla daal di ko ñaanal waa dëkk bi mooy yàlla jàppale leen ñu booloo yéen xale yi ngeen nekk benn su ko defee yéen yéen a mën a tabax seen dëkk bi ndax xubul watan minal iman du addis waaye addis burgi ba moo ko wax bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk am na ñu mbégte lool bi ngeen fi dajee bay armel yi balay midi armel yi jeex na set na la ca des nag mooy ñu bennoo te fexe yéen mag ñi ngeen jàppale ñu ci at mu jotati mu ñu bañ a yem ci mbéy mi rek waaye buñ ko béyee ba pare ñu def ñaanu woyu daw yi maanaam bu ñu ñëwatee jàpp jàpp ko nga xam ne ñëpp dañ koy defandoo def ko benn bés boo xam ne dañuy yendu ba ngoon bu ñu baasee fii wàcc ay kaamil ñaanal woyu dawlu yi bay armel yi tey ñu def suñu xel ci ne ñi ngi leen di ñaaxaat bëgg nañu armel yi benn bu ci ne ñu fexe ba buñ ko bornee fexe lu ñu man pour miire ñetti armeel yëpp ndax du ñu miire bii di bàyyi bii suñu yéene daal mooy ànd ak yéen di def ay pexe ba ñetti armeel yëpp miire ko ba ëllëg kuy njabootu Amady Ndiaye Njàmba boo ñëwee mën na la béréb a nga nee béréb a ma nga nee ku jabootu ci gédde boo ñëwee ñu ne la maam gédde ngi ne ci mbañ boo ñëwee ñu la maam mbañ gay ngi ne loolu tubaab yi gis nga ne seen tom bi maam yi ña ngi koy defaraat di ko tabax te ñeen ñoom ñoo ñee seen i maam la ñu liggéey ñun suñuy maam liggéey na lu ko raw ndax amul benn tubaab bu maamam gorob dëkk ñun nag suñu maam yi dañoo gor ay dëkk def liggéey bu rëy rëy rëy kon ñi ngi sëñ Mbacke ñi ngi tëje foofu di la jaafal jaajëfal yow it bi nga xam ne yaay PDC Gindigaal ci farlu bi ak sa équipe bi tey ñëwuñu waaye yow mi fi teew matal nga lépp guddi bëccëg yaa ngi liggéey euh, vraiment li ngay def ci internet bi yàgguloo jëw ci géew bi waaye indi nga fi loo xam ne lu bees la ñu ngi lay ñaanal yàlla sa chaîne bi nga xam ne mooy Jimbinaal bi te ngeen teg ma ci bopp bi ma jiite leen yàlla yeggale ko fu kawe seen jort ba balay déwén nga mën a waaye ay jeunes yu bare bare bare yoo xam ne xëy na sax dañu jóge ci dëkk bi ñu ngi wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah لمن فضل بال لدى ستاخني لقد جاكم خجاء